bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen seer di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne teru na léegi nii di ñaan suñu borom ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm ci darajay sëriñ bi darajay e, weer wi tamit ñu ngi fii ci kanam sëriñ Afia Bousso e, dalal. Euh, fédération Touba Brescia euh, ci liggéey bu am solo boo xam ne sëriñ xaadim mbay mi euh, ak moo ko sos ci ndigalul Baye Cheikh Awa Balla ak ci ak ci xalaatam fecca Touba Pontevico ñu di ko def at yu bëree bëree bëri nga xam ne bi nga xamee ne xam nañ mbooloo mu bari muy doge si fii ñu xam ne danañ soxla ay jumtuwaay kopp yu bari yoo xam ne danañ ci mën a danañ ci mën a naan kafe ñoom ñu sasoo woon ci at yi yëpp ngir jënd ay ay kopp ngir indi ko ci jumaa ji ren jii tamit def nañ ko indi jënd nañ lu ma téeméeri kopp téeméeri junni kopp ak ñaar fukki junni xam nga ne biñ xoolee euh, ci rapportu daaw bi nombre bi nga xam ne gis nañ ne daaw teew nañ fi ci biir koor gi biñ xoolee ci limu liñ jënd ci ay mburu mat na juróom-benn fukki junni mburu ak juróom-ñaar loolu soo ko xaajee ci digg bi bu nekk dalay jox dalay dalay wane ne fii recevoir nañ fi daaw lu lu ëpp téeméeri junni nit ak juróom fukk ak ñeent ci ay personnes kon su fekkee ne jënd nañ lu tollook téeméeri junni kopp ak ñaar fukk kon dafay mel ne kon loolu eh, sax am na déficit sax lu mat fanweeri junni wala yooyu soo ko dee xool waaye nag loolu nag am na ci ay eh, am na am na ay kopp yoo xam ne yu koy remplir yoo xam ne tamit yeneen copie ban yi lay doon yooyu nga xam ne dana dana fe dana mottali yi ci des dana mottali fanweeri junni yi yoo xam ne eh, day ànd ak eh, palaatu su ko defee nag muy liggéey bu rëy boo xam ne wax dëgg yàlla bañ ko soseeg léegi yàgg na lool mën nañu wax ne léegi mat fukki loolu ci taxawaayu Baye Cheikh Balla ak sëñ Xaadim Mbay mi ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal léegi nag su ko defee kon dañuy jox sëriñ Xaadim mi nga xam ne euh, liggéey bi moom mm, ñi ko sosoon la bokk mu leeral liggéey bi fa mu jóge ak fi mu toll euh, xam la tamit ñi nga xam ne joxe ci seen àddee ñu xam ne liggéey bi agsi na incha allah fi mu nekk nii ci turu waa fédération kër Cheikh Ahmad Bamba ñu nekk ca Touba Brescia ci njiital Maxtaar Kanji ak Modou Mbaw ñoom ak sëñ Fallou mi nekk imam ba ñun dañ teew di indi seen liggéey ñu indi woon ko fii nag ci jumaa ji maak sëñ Abdou Diop ak sëñ Modou Li xëy na ñeneen war nañ fee teew si waaye da ci am ñooñ dañoo jegewut ñim laa jot jot ci ñu mën a teew ñu indi fi liggéey boo xam ne nii ñun xeeb nañ ko lool loolu nga leeral ci kiitam baaxoon na ci ndax ñun buñ buñ xamee woon noonu taalibe yéen nañ lu ëpp li ñuy def ab tàmbali rek la waaye lu mu gën a leer rek fas nañ ci yéene duñ duñ ci am fi incha allah nag dañoo baaxawuta dañuy bàyyi kàddu leen ci yéen lépp rek ndax wax dëgg yàlla mëne wuñ wax te jëf ju ndawee nii dañ jëf ko di boole cay wax ju bari moom day mën a ñàkk ñu ngi tuub ci turu bokki taalibe yëpp di jatal seenu cant waa Touba Brescia ci njiital Maxtaar Kanji mi jiite fédération fédération ba jamiyat taawun ala taat lay wa rasulihi ak sëñ Modou Mbaw ak sëñ moodu Mbaw ñoom ak sëñ Fallou ma nekk ca kër ga nekk imaam yi kër sëñ Touba ak bokki taalibe topp seen ginnaaw yëpp seen tur lañ fi ñëwee di leen jottale ak cant bu baax a baax a baax a baax di bëgg seen liggéey bi te da di ko xemeem te fas ci yéene gën a bu soobee loolu nag maa ngi koy wax ci turu bokki taalibe ma nekkal foofa fas nañ ci yéene gën a dugg bu baax dugal sunu ñàq ndax lu dalam xel la lu yaakaaru la waaye di ko sante nag suñ Cheikh Awa Ballam suñ la mi nga xam ne gannaaw yàlla lépp moo ko dox ba dugal nu ci moon ubbil bunt bi ban man cee euh, jariñu kon nag tawfeex di yàlla bu ko ci kenn ëppale te yàlla nañ ko yàgg ànd ak moom dafa génn nit waaye bu teewoon tey jii moo mu toogoon jëmmal ko moom rek moom moo moo moo ma doon sagoo waaye nag sëñ Abdou Lahad la ci des lépp nañ ko bàyyi sa kàddu rek jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëriñ Afia Bousso moo di leen nuyu moom itam ci turu sëriñ Mouhamadul Muntaqa al xalifatul am li taifatul muridiyya di leen nuyu ci turu Serigne Mame a Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada waaye di leen nuyu ci turu Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadel di leen sant bu baax di leen gërëm rawatina yéen waa Italie yéen waa Pontevico kër Serigne Touba gi ak waa jamaayatu euh, euh, waa jamaayati taawun ala taatillahi wa rasulihi Touba Pontevico kër Serigne Touba ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm liggéey bi. ngeen baaxoo liggéey ci weeru koor gi te mooy kopp yi ngeen deen andi te ta ndigal li bàyyi ko woon ci sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil agsi na andi na ko ak ñi mu àndal mu toll ci téeméeri junni kopp ak ñaar fukki junni di loo xam ne jàpp nañ ne dara naa mën a matal liggéey bi mu doon nag loo xam ne ay at a ngi nii at mu jot ngeen andi ko euh, mu doon liggéey bu rafet bu rëy boo xam ne ba ngeen ko tàmbalee ba léegi mustalaal suuf kon nag ñi ngi leen ciy sant bu baax di leen ci liggéey bi nañ leen ko ci daan defale di jaare ci seen tur nag ak turu Serigne Cheikh Awa Balla ak turu Serigne Mamor di sant képp koo xam ne jëf na ci joxe na ci lu mu néew néew néew ba liggéey bii mën a antu euh, di santit kilifa yi nga xam ne ñoo sasoo woon di ko dajale ci tàmbali ba sëriñ Khadim mbay mii ba egsi fii bu toll ñoom ñëpp lu ñu leen mas a jox mu jëm si ci liggéey bi rek toppatoo nañ ko saytu ko ba na mu gën a rafete ba mu agsi Euh, tey jii nga xam ne moom lañ doon séntu weer wi nii ba si gis ko war a tàmbali koor gi suba ak jàmm incha allahu taala fekk na lépp lu fi war a daje ci liggéey bi rek daje na fi kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey ñaan ñu lool te at mu ne suñu borom a tëbb ay leen gën a tëbb kattan ba fa ngeen bëgg a àggale liggéey bi lépp turu Serigne Afia mii toog ak turu waa waaye di leen sant ci turu Serigne Cheikh Aw Balla ni ko waxee woon ak sëriñ Mamor mi nga xam ne moo nu andi woon foofa wane leen ak yéen soññi leen ci liggéey bi ba ngeen tàmbali ko boobaak léegi dara mosu cee dellu gannaaw kon nag ñu leen sant bu baax ci seen tur ñoom ñëpp waaye di leen sant nag ci turu sëriñ Mouhamadul Mountakha kaddu yi ne kaddu yi sëriñ Afia la woon doon koo ko jottali di leen séentuwaat nag na nga ni déwén ñu bokkaat fi daje nii kenn bañ a manqué te kenn ku nekk yokk bu baax a baax baax ci fànn yëpp nag te mu ànd ak wér ak xéwal yu bare bare bare bare ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dëgg dëgg dëgg dëgg amiin amiin amiin amiin yokk mucc jërëjëf